Nous euh, avons il y a deux ans euh, pour examiner le brevet. Nous sommes en en tout cas, malgré le temps, nous commençons dans de bonnes conditions. Et nous sommes également au niveau national, que partout, en tout cas, nous pouvons démarrer. Les surveillants sont nous, donc euh, ça se passe très bien. Et la première épreuve de mon avoir c'est que nous sommes Donc nous sommes en euh, étudiants élèves, nous 189 000 élèves, nous sommes nga jël junni ak lu teg si ay centre si ay jury donc euh, yombul waaye ñu ngi féliciter le la direction des examens et concours Nous xam ne ñoom ñoo koy organiser ay matières yu bëri ay jury yu photocopie donc vraiment c'était c'est une occasion pour les féliciter toute la direction di encourager également les parents d'élèves Nous xam ne ñoom ñooy encourage ñoom ñooy encadrer xale yi ak enseignants yi ay conditions yi difficile ren xam ngeen ne novembre commence en novembre def ay révision ay remédiation janvier. janvier Et ñi de def ren examen day janvier Là, nous commençons. Le mois tax bi de vers le mois de mai nous décaler encore de quelques jours pour que nous ayons des résultats yu baax li 6 CF a am e résultats yu baax la également super baccalauréat première partie bi génn mais deuxième partie bi dina génn su comme année de référence 2019 nous n'avons wax que am ren résultats yi baax nañu trop wax dëgg yàlla si e, en ak entrant sixième léegi mu génn 75 là donc vraiment content en tout cas le fait que mu ñëw fii lii ma gis en tout cas dal na sama xel loolu la deug également Fallait subir biir Sénégal di wax ne président de la République Macky Sall loolu la ñu wax fexé len ba ngeen am en tout cas ay résultats yu bax ba ANCAR espace bi ngeen pacifier ko et jël nañu encore information yo xamné ñi Gambie la ñi Djidda la au niveau de Djeddah xam c'était tellement compliqué école sénégalaise loolu am solo la parce que Sénégal est une grande nation donc am nañ fi ay école yo xamné ñu ngi fi ci Gambie ay plusieurs nationalités ñoo ñëw di jàng foofu ñoom aussi ça se passe très bien Jeddah également woo nañu leen léegi à Jeddah foofu aussi suñu école bobu ça se passe très bien di wax ne daal que BFM bi commence nañ ko di féliciter di encourager en tout cas enseignants élèves parents d'élèves yi di ñaan yàlla également résultat ñu nar am ren yàlla nañu dépasser également ñu de telle sorte que maintenant nous ngi wax ces ci espace ci école sénégalaise dañu bëgg cette dynamique de réussite tout le temps nañu fexe ñun ñëpp nous pacifier espace public l'espace espace scolaire calme mu dal et comme ça que ñun ñu résultats parce que nous sommes au Sénégal. Nous avons d'accord, na décision du président de la République décision bu am en tout cas nous enseignant euh, nga école élèves nous réussite scolaire. Euh, loolu moo tax donc président su ko waxee et surtout que foo dem si école yi day mel ni am na ba pare donc euh, koo xam ne jël décision di wax ne loolu waruñu ko woon def pour man analyse bi gàtt na gaaw na trop dañ si war a def ndànk réfléchir xam ne de toutes les façons du Sénégal kese partout foo dem en tout cas si Afrique loolu am na ba pare fii également si biir Sénégal public ak privé am na ba pare donc léegi li ñu jël comme décision mooy que préscolaire ak élémentaire mom la commencé pour que ñun ñu def ba suñu élèves yi am ay tenues yo ñom ñoko bok équipe esprit d'équipe très tôt ñu ko donc lool rek la la décision bu la président jël la décision bi dañ koy